Cukkali nuyu naa la <laughs> fay naa euh, euh, finalement sa combat ak Gris yàqu na sa combat ak Bombardier moo taxaw. waaw loolu la yàlla dogal euh, yàlla dogal na combat Gris Bordeaux la ñu joxewoon waaye bii kon yàlla dogal na joxe nañu accord signé contrat ah boo signé rek daanaka mooy jot nga avance. Mm-hmm. ñu ci sant yàlla. jëlaat bombardier yi ak fi ngeen jot a jaar. Mhm. Euh, revanche bu la gënal la. pire revanche bu ma gënal la ndax ku la daan da nga war a fay daf ma ameel bor ñaari bor nag. benn ñaari bor ban ak ban. mooy ba mu may daan roi des arènes la roi des arènes laaw mu daan ma kon ñaari bor la. mais du ci <laughs> punkal mu toll nii bombardier yi wala bala ci punkal la gën a ay. waaw mën a ponkal ponkal ponkal lan mooy ponkal. gudd rëy. loolu du wax. gudd rëy mooy lan ñaata mbër laa fi bëri. waaye daanaka góob fi ku mel to euh, maanaam da ko toll nii Bombardier. non nga may wax. non yaay wax. kan ak kan laa bëreel <laughs> yaay wax kan ak kan laay bëreel ñi ma bëreel ñëpp maanaam ni ko dalee ma ma maasale samay ak sumay ñi nga xamanteni ñoo maase dal ñëpp dama xuus ba ci biir daj fa ay ponkal yu mag bëri ñom daan leen yalla dogal mom mu daan ma mo wara am sama revanche ak mom mo war ma jox. mais défi la quand même bal gay défi bu défi bu 10 la. 10 lu tax 10 yom na yalla te lu yomb yalla suñu borop danaka ngeenel la ci doomu adam euh en tout cas dal ñu ngi ñaan yalla ñu dem ci jamm am ci ndam ci jamm Euh, ñu fété ko ak am di jàmm ak supporter yi. erreur bi la dalon contre Bombardier yi euh, nga ko excès de confiance la won def la ëppoon dole non mbeur mënu dole ci je te dis. mbeur mbeur mënu ma dole doole ci làmb yàlla moo doon daf mo dan dan na ma te ñu ngi liggéey liggéey liggéey ba agat fi ñu wara toll kon dañuy confirmer né mbeur ëpp ñu dole ci te ñu bor ñu war ko dan ñibisi point. li mën naa dóor bombardier ba mu tëdd. àgguñ ci ñoom première euh, signature la te xamaguñu làmb ji kañ la ak ban jour la ak date bi kañ la mënuñu see sori waaye lu ñuy confirmer suñu supporter ak suñu am de jàmm mooy combat bi taxaw na ñu ngi ñaan yàlla yóbbuñu si jàmm ñoom am ci ndam point. combat bi da dellu INSEP. waaw mënul ñàkk ñu bañ a dellu dañuy dellu parce tey. dañuy dellu daal si kàttan bëgguma wax la mooy ci xew mais dañuy dellu incha allah. mais kon gëmuñu ne que Balla Gaye dana gaaw a jotaat ci couronne bi. dañoo. dina gaaw a jotaat ci couronne bi ak configuration bi làmb ji amaat. non làmb làmb xam nga mooy li may wax rek corone bi mu yéex mu yàgg yàlla xam mais bis bu jotee war ko jot naa ko jot naa ko jot incha allah. di nga ko jot. incha bu neexee yàlla mu yéex ak mu yàgg yàlla moo xam mais bis bu jotee ma war koo jot dinaa ko jot. lool la quoi. mais daal mais daal na bombardier pare. non pare na man pare na la res daal yàlla nañu yàlla may ndam jërëjëf. merci jërëjëf Thiock.